ay waxtu dox sunu digganteeg tabaski ñu bari ragaloon ne xar dana ñàkk waaye ku doxantu ci foiraay yi nekk ci dëkk bu sell bi di Touba da gis ni xar sax boo deful ndànk dafay fafa lamb. waaw wax dëgg yàlla waajtaayu ren wi euh, par rapport ak niñ ko daan waajale daal ndax biñ demee ba tabaski bi di ñëw ministère bi ñëw na fi ñu teeru ko teeru bu bu rafet mu def fi temps bu yàggit nag. ndax yaakaar naa temps bi mu fi def du mané def nako fu né waye du deful fu né temps bu upp bi dal té waxtaan wi tégué na ci yoon euh, ba tax na ñi ngi sant yalla bu baax ndax xar nak mom xamna né du jeex mom xar mom passé nañ fi mi manké fu mi lambé ci lañ tollu waye passé nañ fi mi manké té daralu kër moy mir daral ci Sénégal bo don ko don daral da nga daralu dakaar te yaakaar naa dalalu dakaar liñ def fii ci milliard bu dee def nañ ko fat ëpp léwu xar yi bëri nañ mais bëri waaye bi nit taxul mu yomb daal bëri na lool mais yombul xaw ma nag lu ko waral mais instant bi moom nit ñi dañuy ñëw rek xool ñi ci ëpp sax bor la ñuy ñëwee dañuy ñëw ma jox la lii des des lii dëkk bi daal lañ leen di wax ne fu métti wi nekk rek passé na ko. mooy yaakaar naa quatrième fois yoo xam ne nii. maa ngi koy def fii nii di baas maa fi njëkk a baas fii man daaw fii laa nekk xar yi ma yoroon yu cher la ay xaru 400000 500000 mais ren dama wàññi lu bëree bëree bëri parce que xam naa situation bu ma ko jàngee ak daaw ñu ci bëri dañoo jël ay xar yar ci seen biir kër xam nga loolu kon ñun ñuy jaay dañuy am jafe-jafe. xar yi daa mel ni ren la gën a yomb de waaw daaw moom xaw naa seer ndax daaw heure bi boo ko xoolee daanaka daral bi amatul xar. te ren ma sha allah xar yaangi fi ya naa ñëpp mom dinañ am xar bu soobee yalla fi ci Touba dama xamul yeneen gox yi nak fi mom da melni xar amna fi mom ci lima gis fi fi mom xar amna fi mom xar bari na lol fi melni yom na tamit deug yalla ministre bi ubbi na yoon yi lo am di nga am xar fi mu ci bir bo duggee. xar lamb lañuy wax way du manki lamb mom def nako ko ba me boo ñaari junni la wax bi nga am xar mu baax moo mo tabaski ak sa njabot xar mu daan daw xar yi jar ñaar ko jundi ren fukki junni lañ koy jaayee minister élevage Samba Ndiobène Ka ñëw na fi def na fi visite seet na fépp wàññi na xar yi bu baax ba fi ñëw tamit jënd na fi ay xar Macky Sall nag moom ñu koy sant ndax président mat président la corona bi métti na loolu waaye géré na ko ba tewul fii ñu ngi liggéey normal. waa xar yi moom euh, bari woon nañ waaye daanaka jaawuñ ci dara xar yi daal gisuñu ko jënd ministère bi ministère euh, Samba Ndiobène Ka. barke da mu ñëw na fi jamono yàlla ñu di ko jooytu ay xar xanaa ñu ko doon jooytu xar nag xëy na xar ñëw nañ waaye na gisuñu leen ñoom xar moom du jeex fii moom fii ci Touba moom du jeex te xam naa ne àdduna ñoo ngi déglu ba léegi taal suñu téléphone di déglu fu mu manqué fii boo Sigasor ba fa manqué woon dañu bu fa ay xar waaye dégguñu fenn foo xam ne manqué am na fa li xar bari bari terewul ñenn yi jàmbat nekkoon gisuñu benn client ba tax na bu nu deful ndànk seeni xar dana lamb général Diène Gueye di wax ne li ci am solo mooy ñëpp am xar dem nañ daralu tëli bu bees dem nañ aussi daralu Kër Kàbbu dem nañ daralu euh, Daaru Marnaan ñëw nañ aussi tey jii si dara gi nga xam ne si ne mooy dara daralu Ndindi mais liñ constaté te ñi nekk ci njaay mi ak jënd bi ñu koy wax jule yi ñi nga xam ne ñooy jaay xar li ñu wax nee nañ xar moom ren dafa tuuru nee nañ xar doy na ren doy goo xam ne si ne lu waay am am xar loolu nag su amee dañ ci remercier bu baax son excellence président Macky Sall si taxawaayam ak programme bi nga xamné ne ko mais également di remercier jëwriñ gi nga xamné ne si ne la dénk département bobu mi ministre de l'élevage Samba Ndiobène Ka ndax mom vraiment def na tournée ci commune Sénégal yu bëree bëri fenn fu nek mu wàccal fa bopam ànd ak délégation wër xol avant tabaski bi ba nopi limu mu won moy mooy mo waxone né ne lu am di nga am xar gor góorgóorlu ba xar yi doy yakana nak nag xar yi sax dafa far lamb ci loxoy ñi nga xamne ñokoy jaay loolu nak mom moy taxawayu jeewrin joo xamne da nga la dañ la yaakaar tek la ci bop askan wi pour nga leen di dundal nga leen di jappalé kon nak ñi ngi koy remercier bu baax ci taxawayam di remercier aussi ki nga xamne moko denk liggey dénk muy président Macky Sall di wax ne nak liggey mom wuta nak ak ay wax parce que tay ji li lu ne kenn duko jeex wër nañ daral yépp daral go dem dañ naan jaaykat yi dañ nan la xari lo am am xar kon nak ñi ngi wax nit ñi ne leen na seen xel dal fu way mëna a nekk ba fi ba fajar lo am so démé nañ la jaay xar nga dem ci sa njabot fété feet gi bu baaxa baax té ñu bayyi xel tamit aussi ci nga xamné jangoro di ji fi nekk te président dacc lu nekk pour ñu muccu ci ñu bayyi ci xel boy kuy dem daral nga wut masque tak ko ñu respecté tamit aussi mesure barrière yi lolu mo ci am solo ñu joxente distance di raxasu bu baax ñongi remercier bu baax tamit le ministre Samba Ndiobène Ka il faut ñu wax ko parce que moko def il faut ñu wax ko taxawayam bi mu ñëwee ci daral gi de nga niñ ko waxé waxon na né inshallah incha rabbi dina def le tout pour kenn ku ci nek lu am am xar té lolu tay ji amna na kon loolu ñu koy sante bu baax diko ko ci turu mairie bu Touba ci turu commune bi ak ci turu tamit Sénégal yépp parce que li ñu gis fi moom. ndax am na benn waaye sànq bu ne ma ñu ngi déglu rajo yi di xool fan la xar manqué ci Sénégal pour ñu yóbbu fa seen i xar pour ñu paasal seen oto yóbbu fa seen i xar waaye nañ fu ñu woote ñu leen fii xar yi mi ngi ci mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi fi ni ñi am nañ ay xar na xam ne l'ensemble 45 departement yi fi nekk yëpp benn département bu fi manqué ay xar nekku fi benn commune bu fi manqué ay xar nekku fi loolu sant yàlla la ñu ngi ko ci sant di ko ci gën. bu dee ci diwaanu Touba ay xaru caaw ñoo fa ëpp boo ñëwee ci Mbàkke moom ay xar yu nu yar waaye xar yooyee yëpp baax. waaye yëpp cher